gërëm bu baax Mbàkke di santit nag ñi nga xam ni ñoom nga joxoon euh, ndigal li ñu ñëw fekk suñ ca Ndakaaru euh, te sëñ Bass Poroxaan jiite wun ko ban ñëwee fekk nañu waajaloon ndax booba euh, xel yëpp jaaxal ñëpp tiit nañ senegal bi nga ñëwee yónni leen ñu ñëw matale nañ lool la nga leen waxoon. Mm. ban ñëwee ñu ñaan ñu ni sëñ Muntaxa nee na ngeen teg lépp ci suuf ban ko waxee ca fasaase ñun leen nangul nañ ko ko. ndaxte mooy sunu kilifa di kilifa ki yor réew mi fii sëñ Mountakha lu mu fi wëgg bu ñu woowoon ca Touba dañuy déplacé wu ñëw lii mu leen yónnee sax ñu ngi ñëw ñun lu rëy rëy la ci ñun ñu sant ca lool. bi ñëwee léegi ñu ngi sant bu baax sëñ Bas Salis bi ñu yegsee dal nañu dal bu rafet moom ak sëñ Modou euh, Roqe ak euh, sëñ Abdou Gora ñoom it wax dëgg yàlla euh, liñ ñu won fii tey gën na noo yokk sunu pas-pas. Euh, sëñ Abdou Diop mii nga xam moom la sëñ Bass xaan euh, yónneet bi mu ñëwee ci kàddu yi rafet wax dë dëgg yàlla rafet na li nga xam ne moom lañ taxawee ñun tamit ca Ndakaaru bi nga ko yónnee ci ñun ñu lay xamal ni li nu bëgg rek ci réew mi mooy réew mi am dal moo tax Mbàkke bi nga ñaanee ñëpp ñëpp fekk si la ci loolu Sénégal gépp kontaan ci yow ndaxte ñëpp tiitoon nañ ne Sénégal day takk naam am na lu jot a am waaye bi nga àddoo rek Mbàkke yónnee ba nga yegsee lépp loolu ci la lépp sedd moo tax Sénégal gépp ñu ngi lay gërëm ñun nag li ñu tax a jóg mooy defar réew mi lii nga xam ne mooy ruuma daat ci réew mi bëgg a yàq réew mi mu dakk ku sa mandat jeex nga dem ci jàmm képp ku sénégalais yi bëgg a fal ñu fal la beneen bi mooy lii nga xam ne coow loo xam ne ñu ngi koy dégg ci réew mi muy coowal ngóor jigéen liñ bëgg a lawal ci àdduna bi te yow mii xam ne lu ne yéen ko ci liggéey pour diine ji nga xam ne seen loxo seen i kilifa leen ko joxoon ngeen bëgg koo bàyyee seen i sët ak seen i sët sëtaat gépp nekk ci nekk ci jàmm loolu rek la ñuy ñaan mbake bu ñu jàppalañ ci pour Sénégal dara bañ ko yàq sunu askan kenn bañ koo yàq ndaxte yow ci lu baax rek ngay dox Mbàkke parce que nit ñi woon nañu lool même man ci kaso bi ma nekkoon sax ba may xool ci tele bi li xew am naa mbetteel waaye ba nga waxee dañu bàyyi lépp lu ñu jàppoon teg ko ci suuf te gis nañu ni am na jeexital euh, ñu ni woon nag ñun bu ñu génnee laata ñuy def benn yitte laata ñuy def benn activité dana ñëw ba ci yow gërëm la ñaanal la won la ni reconnaissance ak njukkal bi senegal bi la Sénégal ameel euh, ak ak ndigal. bi bi bi Sénégal di jëfee bu tukkee ci yow te mënuñu daaneel euh, sans rafetlu euh, ki nga xam ni moo jëmmal sa yéene ak sa pas-pas euh, muy sëñ Bass Poroxaan parce que doxal na mission bi ci anam bu mu gën a rafetee te doxal na ko fu mu gën a nekkee yoon donc fexe na ba ñun ñëpp ñu waxandoo defandoo ci benn kàddu li ñu ñaan nag la chaque fii loolu moom ñu ngi ci ñu ngi koy jëfee euh, loolu moo waral ngërëm li nga xam ne du di di dina dina jiitu ci yow waaye dina àgg ba ci sëñ Bass Poroxaan mi nga xam ne bëgg nañ ko ziyaare. li am jamono yi weesu moo taxoon nit ñi di dégg Assane di tifaar ndax bu fekkente ne réew danga cee nekk bàyyi fi am fi ay mag yu baax ñu toog rek loo soxla boo ñëwee ñu ñaanal la ko. ñu xëy am ñoo xamante ni kenn xamu leen woon ñun suñu bàyyi sonn lool ñu ñëw jiite ñu ba pare duñu déglu kenn moo waraloon ñuy dégg yenn kàddu yi ci man ma di ci jégalu bu baax di la sant bu baax tamit comme gise nañu waaye li ma gën a soxal ci yegsi bi ma yegsi fii man ku nekk xam na ne Amérique laa nekkoon te Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke sa mag ja moo tax moo ma yóbbu woon Amérique. ma demee musuma laal yu fu jàmbur musuma tooñ musuma def lenn ba commencé di jooyal sama réew ñu fekk ma fa jiiñ ma terroriste ñu am suñu benn mbokk bu ñuy wax Ousmane Tunkara muy sama xarit nga xam ne keroog bañ ma jàppee ci la ko sénégalais yëpp xam kenn musu koo dégg kenn musu koo gis ñu jàppaat ko bii yoon jiiñ ko terroriste ma bëggoon Mbàkke Bàlla nga ñaanal ko ñu bañ koo néewal doole ndax ñabootam juróomi doomam a nga fa ak soxnaam nee na mbir mu yaatu la moo xam ne. amoon na yéene mën ko jàng leen ko daal di jàngal. amoon na yéene yi leen koo daal jàngal. waaye nag loolu itam. dadul mën a gaaw a nekk. adduna <laughs> nii nii la baaxoo. bi baaxoon nii. waaye bi mu baaxoon nii. gis ngeen sëriñtuwa gis ngeen Serigne Touba. diggam ak àdduna. diggam ak àdduna. diggam ak ngóor gi ngóor gi mu fi fekkoon. diggam ak ngóor gi gis geen na mu demee. gis ngeen na mu demee. loolee rek moo fi nekk ba léegi. nekk ba mën a xew rek. nee na lu mën a xew rek. da ngeen di dalal seen xel. da di dalal seen xel. te gën a rafet njot te gën a rafet njot seen diggante ak seen borom. seen diggante ak seen borom. ndax mooy def mooy dindi. ndax sunu borom mooy def mooy dindi. te wuutewul dara. te wuutewul dara. moonu gën a xam suñu bopp. te moonu gën a xam suñu bopp. moonu sàkk. ndax moonu sàkk. te moonu gën ci suñu bopp yi. te moonu gën ci suñu bopp itam. ay kàddu nee na lii mu leen wax ay la yoo xam ne ma des la ko yaatal lool. noonu adduna demee woon jamonoy Serigne bu Serigne Touba di feeñ. nee na noonu adduna demee woon bu Serigne Touba di feeñ. loolu ba tey loolu rek fi fi nekk. noonee Serigne Touba doxee woon itam. noonee Serigne Touba doxee woon itam. ko mu mu mu jullit yëpp. yéene woon ko jullit yëpp. jaay boppam boromam. jaay boppam boromam. gis dara lu dul boromam. gisul dara lu dul boromam. ba liggéey bu rëy bi mu liggéey mu liggéey ko. ba liggéey bu rëy bi mu bu rëy mu liggéey mu liggéey ko. bàyyil na ko fi bàyyil na ko fi. loolu rek fi na loolu rek nag moo fi nekk ba léegi. bu leen jombale seen bopp dara lu baax. bu leen jombale seen bopp ci dara lu baax. xam naa loolu léegi lii leen ay bëgg lu baax leen ko teg. nee na xam na lii def lépp bëgg lu baax leen ko teg. waaye nag lu baax lay dëgg dëgg dëgg lu baax. waaye lu baax lay dëgg dëgg lu baax. dafa am yoon. loolu lépp nag. nee loolu lépp nag. noonu ni mu leen ko tënkale rek. ni mu leen ko tënkale rek. ci sëriñ bi ak jamono joo jamonoom. ci sëriñ bi ak jamonoom. loolee rek fi nekk ba léegi. loolee rek moo fi nekk ba léegi. lu nu ñàkk ñàkk solo ci moom. nee na lu nu ñàkk ñàkk solo ci tund dëgg sëriñ bi ak fa sëriñ bi toll. Ah, lu nu ci ñàkk ñàkk ñàkk solo. nee na lu nu ci ñàkk ñàkk solo. war na noo xam ne loolu mooy sunu ndono. war na noo xam ne loolu mooy sunu ndono. waru noo bëgg dara. waru noo bëgg dara. ñun nun ñii. li fi sëñ Tuubaa bàyyi. nee li fi sëñ li fi sëñ Tuubaa bàyyi. waruñoo bëgg dara. waruñoo bëgg dara. defar rek lañu bëgg mooy suñu defar rek mooy seen warteef. defar dong mooy suñu warteef. nee defar rek ñoom mooy seen warteef. kon defar gi. kon defar gi. ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéenay ndawi réew mi. yéen ñi nga xam ne yéenay ndawi réew mi. suñ suñu liggéey boobu. seen liggéey boobu muy defar gi. kenn gënu leen ci yee. kenn gënu leen cee yee ci defar gi. defar rek la rek ak ak lu mën a jaar ak lu mu mën a bari bi lu xarit bari bari bari bari lépp. nee fu mën a jaar ak lu mu mën a bari bari. mi ci mi yàqu yàqu ak defar. mi ngi ci yàqu ak defar. waaw moo def lépp ci coobareem. yàlla mooy def lépp ci coobareem. faww nag. waaye faww. ginnaaw yàq yàq ngi yàqoo ngi am. ginnaaw yàqoo ngi am. waaw faaw faaw defarkat na ci wetam. ci wetam di defar. waaw kon nag. lii nu gisagus néew ci tolluwaay bi. lii nu gisagus néew ci tolluwaay bi. dara lu dekkal fu seen aw tànk tànk lan fi Tuba bàyyiloon ñu nekk ca loolee. du dara loolu fas yéene lan fi sëñ Tuba ñu nekk ca loolee. loolu dong. loolu dong. xam na moo moo moo andi kon noonu rek la. kon noonu rek la. na ngeen góorgóorlu bu baax. na ngeen góorgóorlu baax. Eh, xam mooy def mooy dindi. te xam ne sunu borom mooy def mooy dindi. te te te te ku ne itam. te ku ne tekki itam. ànd ko dal boole kooku njub. boole kooku njub. bëgg la ngay bëgg. bëgg la ngay bëgg. nga di ko am wut ci yar ak teggin. nga yar ak teggin. booy boo nga rafet njor. booy boo rek la demee. nee noonu rek la demee kon na ngeen góorgóorlu bu baax. lu ngeen mën di wut. lu ngeen mën a bëgg ak lu ngeen mën di wut. na ngeen ànd akuk dal. na ngeen ànd akuk dal. akuk teg. bëgg la ngeen bëgg. bëgg la ngeen di bëgg. di ko wut di ko wut ci yar ak teggin. di ko wut ci yar ak teggin. Jarafe Njort. Jarafe Njort. jaana teg bisimilah bisimilah. bisimilah. بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت علمي ثلاثي لا سبت إيسة خلا ويسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلالي ستي الإنس والجنوة seytaanu yàllaaw anta samiu laasi naajitu woo samaanan wa bil masaaraatili qad jutta yàllaaw anta albasiiru laasi li xaada jumlataama lixtarta dunyaa wa uxraa minka yàllaaw